asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen di jox seen waajal jox seen matuwaay jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla ngeen may ñu ñu. jaajëfee bu baax a baax teewaayu toute la presse nationale internationale lii du meeting lii point de presse la ñëw pour fësal suñu coalition ak tamit fësal suñu yéene ci Sénégal ak ci ëllëgu Sénégal ngeen may ma nag balaa may tàmbali waxtaan bi ci turu coalition Sàmm sa kàddu te yàlla def ma nekk ci tête de liste nationale may ma ñu nuyu gërëm sant te sargal suñu kilifa yi di Serigne Moustapha Sy du PUR ak Khalifa Ababacar Sall bu taxawu Sénégal leen di gërëm di di sant ci opportunité bu ñu may tey jeunesse sénégalaise mën a taxaw mën a waxal askanam te mën a doxal askanam ndax Sénégal mën a jëm kanam maa ngi dégg léegi nii suma xarit di Assane Diouf di wax ci Dakar ma bëggoon dalal xelam Assane Dakar Dakar dëkku ndaanaan la Assane damay dalal sa xel Dakar duñ ko fi dénk benn sàcckat te sàcc lu fi bonde Assane may dalal sa xel Assane ñun suñu demee ba tànn tête de liste département de honorable député maire Babacar Mbengue

honorable député maire Jean-Baptiste Diouf fan la jógee ñu ne leen Grand Dakar la bàyyeekoo ku jum wante si dama ne goro du béy baabul di ko dundee moom bi Dakar du fi am ñu fi toog tey ne dañuy soxla Dakar mënuñu leen wax ci ban gox lañuy ñuy bàyyeekoo biir Dakar amuñu base te tekkiwuñu dara biir Dakar bu suñu fi tekk dara kon nag du tey dañ fi tekki dara nañu bàyyi seen xeetu dóor marto yi te wax askan wi fan nañu dugal xaalis gi xaalis bi dañu bëgg a xam fan nañ ko dugal dama ne di dalal seen xel yi Dakar du fi jox benn xeetu immunité parlementaire benn xeetu sàcc ndax mu mën a làkkatu pour refuser de répondre à la justice sénégalaise dama ne tubaab nee na il n'y pas de fumée sans feu dama ne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 lu tax ñu wooye ko sàmm sa kàddu VAR parce que kàddu dafa am solo ci suñu cosaan ci suñu aada lu tax ñu yokk ci VAR wooye ko valeur pour une alternative responsable mooy campagne gi bëgguñu xuloo kenn bëgguñu xeex kenn bëgguñu teysante ak kenn jaru ko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 Sénégal nag dañ fi bëgg a woote maslaa am na solo wante ngay maslaa ba ñu lay maasaale loolu moom xaju fi tubaab nee na tubaab nee na képp ku dul wax dëgg nee na yow mii moom da lay woy menteur mooy em moom la woy fenkat tubaab nee na képp ku mënul nee na moom da lay woy incompétent mooy i du noonu tubaab nee na képp kuy dóor katu marto nee na moom dalay wooyee manipulateur mooy m du noonu tubaab nag nee képp ku tële dalay wooyee incapable mooy i moo tax mimi boobu booy mimi ma bëggoon wax ak ci mimi parce que mimi campagne bi dina xumata dagal danaa leen fen du bijaaw fen du bijaaw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 maa ngi jégalu ci kàddu ya wante de nommé nañu ba nommé kanaar yi ak ginaar yi ñëpp ngi ci biir ñoom ñoo fi waxoon suñ fi faloo dinañ fi jële lu ñuy woye ay fonds politique fuñ ci toll ku dul sàmm sa kàddu dangay ngay fen moom la tubaab di woye menteur te loolu mooy dëgg waxoon nañ leen su ngeen leen joxee réew mi ci ñaari weer ñu soppi réew mi lan moo ci seen xalaat kon nag moom laa leen doon wax ay incompétent la ñoom ñu leen fi waxoon su jotee ci réew mi soxluwul ñuy am période de grâce léppay soppeeku du noonu waaw loolu su nekkule ay xeetu dóor marto tubaab di ko wooye manipulation mooy lan du ñoom ñoo fi diggoon ndaw ñi ne leen suñu faloo mbëkk gaal gi day dagg ñëppay am xëy lu mu bon bon bon ku ci nekk dina am cent cinquante mille francs weer bu nekk waaw loolu gis ngeen seen bopp waaw mooy tële moom la tubaab di wooye incapable moo tax lii di fulla ak fayda mooy mimi boobu mimi booy mimi foog ñu xamal ko ni dëkk bi ay golom duñ fi yeewu te maa ngi jégalu ci kàddu yi parce que moom mimi dafa yebaate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 question de citoyen la ak question de citoyenneté la parce que Sénégal mënuñu nangu fu mu toll tey ay nit continuer di continuer di bëgg a gëlëmal nit ñi di bëgg nax nit ñi ndax la ndax nguur ak bëgg a nguur lu tax mën na leen élection yi foog ngeen jox ndam jox majorité opposition yeen Sénégal est-ce que xalaat ngeen tey am ngeen président de la République est que xalaat ngeen yéen kan ngeen fal da ngeen fal président wala premier ministre ngeen fal xam ngeen président ngeen fal wante opposition bi su suñu amee ndam incha allah le 17 novembre 2024 di ngeen soog a am président de la république parce que boobaa ñun suñu taxawaay mooy di contrôler l'action gouvernementale moom di président de la république dañ ko fal pour juróomi at mandat wu juróomi at boo boobaa moom fauteuil bu mu toog boobaa nag il pourra remplir le fauteuil de président de la république parce que pour l'instant Sénégal amagul président de la république te ñoom du ñu xamul dañ leen dénkul canapé présidentiel dañ leen dañ leen dénk fauteuil présidentiel fauteuil bi nag mu am koy jéem a ak président bi loolu la ñu bëgg nag mu dakk biir Sénégal mbokk yi du ma guddal gis ngeen élection yi jarul xuloo jarul xeex waa jii nu mu leen doon wax démb ak bërki démb na ngeen xoolaat tey taxawaayam ngeen xool lan la ci def ak lan ak ak tamit lan la leen diggoon ak fan la toll ci lu mu leen diggoon loolu kese mooy wax ci parce que nag juróom-ñaari weer daanaka léegi mu mën at dara soppeekuwul ci Sénégal dara dëkk bi nga a metti mi ngi gën a tar xale yi ñu ngi gën a sonn xale yi ñu ngi ci àll bi di mbëkk gaal di wuti yoonu Nicaragua ak ñoom seen suñu yaay yi nag yéen xam ngeen bu baax fu may waxee xam ngeen fu ceeb bi toll xam ngeen fu courant bi toll xam ngeen fu suukar bi toll xam ngeen fu jàng bi toll xam ngeen fu euh, santé bi toll xam ngeen lépp lu xew ci dëkk bi moo tax nañu joxante loxo te voté coalition sàmm sa kàddu ndax opposition mën na nekk une fois de plus une valeur alternative responsable ci assemblée nationale na ngeen partagé na ngeen gëstu vaar yi na ngeen saytu vaar yi te su ngeen demee ci urne pour voter na ngeen voter ngir yàlla te ngir ëllëgu Sénégal loolu la ko loolu la ko am solo ñu ngi leen di gërëm di leen di sant la ngeen jëf mbokk yi.